benn. ñaar bis topp. Mhm. ma jël benn affaire. Bassirou Diomaye Faye. du bokk ci élection présidentielle bi. Bassirou Diomaye Faye mii waa Pastef jiital ñëpp di ko estati ne moom mooy nekk candidat Pastef te day gagné yow nga ne du bokk ci élection yi. du foog nga tegal ma var bi ma waxoon ne. su Ousmane Sonko bokkee tuddee ma xaj. waaw yokk naa ko. Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow gi seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a dee Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow gi seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a dee Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow gi seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a dee Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow gi seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a dee <laughs> jàpp nañ ne ñoom ñoo war a daal di participer si élection am na ñoo xam dañuy soog ay connecté ah. eh, di laajte ndax gi liste bi génn na liste bi génn na <laughs> la liste officielle bi nga xam ne ñoom la waa conseil constitutionnel publié vingt candidats la ñu ci retenir Karim Meïssa Wade la ñu génnee ci ñi nga xam ni nekkoon nañu ci 21 candidats yi recours Ousmane Sonko bi dañu ko daal di loolu mooy li nga xam ni euh, jot na fi tukkee pour ñi nga xam dañuy soogay connecté liste bi nii la tëddee Boubacar Camara euh, Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall professeur Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba euh, Rose Wardini Idrissa Seck Aliou Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne El Hadj Malick Gakou Aly Ngouille Ndiaye El Hadj Mame Boye Diao Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou fay Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaw yokk naa ko Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a yokk naa ko Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xet yow seen ko loolu gën a dee ko Bassirou Diomaye Faye su bokkee ulal xaj yow gi seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën a dee mu ngi nii de lii doon bañal de waxoon naa la ko bu yàgge yàgge yàgge yàgg waxoon naa la ko waxoon naa la ko nee naa la woon moytul gis nga yàlla kenn du ko jiitu si mbaram kenn du wax ne lii mooy xew suba ak lii bu xewul tuddee leen ma xaj dèjà instant ñaata ñaata ñaata turandoo nga war a am Moustapha Dramé instant bi ñaata ñaata turandoo imagine toi ñaata turandoo nga war am fi mu toll <laughs> man moom pour l'instant nii nii kuy aw ku jaay ay xaj na ma def signe quoi woo ma téléphone wala nga message ma parce que instant ma soxla ay cinq xaj yooyu noonu quoi <laughs> eh, di jaay dëgër fit di jaay dëgër bopp di di wëgge wëggeloo Moustapha Dramé xamoon nga ne sama bis man ak yow dina ñëw xamoon nga ne dina ñëw fii laa wax samay wax avertir la ne la li nga wax ëpp na nga nga ne danga may noq léegi nag instant mu ngi nii lii laa doon bañal man bugguma woon man bugguma woon Moustapha Moustapha Dramé man vraiment bugguma woon nga am ay turandoo mais tamit bëggoon naa ko parce que tu as bu Sonko bokkul wala Jomaay Fay bu bokkul bu bokkee wala ku taq si Sonko loolu nga wax loolu nag ah euh, euh, maa ngi tuub de waaw Sonko wala Jomaay Fay wala ku maanaam ku mas a laalanteeg Sonko am ak moomu xaar ma yàlla sax da nga ne du bokk. léegi nag kaay fii ñu waxtaan nga wax ñu nag léegi lan mooy problème bi instant bi lan ngay wax waa koñ bi dimbali ñu rek nag da am grandeur nag bu toll ne nga génn def vidéo nga leeral ni carrément euh, yàlla mi la doon may tey moo xañ waaw léegi nag yàlla dogal na li muy dogal ci kattanam ak ci mbaaxam instant bi xanaa doo leen ne dafa amat ay recours yu ñu war a defaat pour invalider waat ay candidature xanaa doo leen wax loolu ah docteur Cheikh Tidiane Dièye muy Bassirou Diomaye Faye muy président Ousmane Sonko ah yàlla def na ligën gën yàlla def na li gën léegi nag ci réew mi ñu nekk nii di fi xëy di fi tëdd di fi nelaw di fi yeewoo ku fi ëpp problème ëpp fi ay turandoo Moustapha Dramé la tudd fi mu toll nii te sa sa tur fi mu toll nii yoon la nag ñu changé tur bi waaw asalaamaaleykum sama gars yi nuyoo gu ma leen sax maa ngi leen di ziare baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacke di seetu sëriñ Abdoulahat Mbacke bu leen ko fàtte képp koo xam da nga am jafe-jafe ci wàllu ngóor jokkool ak sëriñ Moustapha Mbacke mais day ñaan day listixaar numéro téléphone bi moo nekk noonu ci suuf du Moustapha Dramé nag kii du moom moom kii moom doo leen ko gis fenn mu naan eh, bu Sonko bokkee woowee leen ma nii wala bu eh, seet tët tët Moustapha Dramé Moustapha waaw man fi mu doon nii nan laa war a commencé désormais nag waratuma laa wax Moustapha Dramé te xanaa nag pour l'instant nii waratoo bañ tur boobu instant bi moom tur boobu waratoo ko bañ lii yëpp waxoon naa la ko Moustapha Dramé yàlla eh, lani kase bëgguma laa tuddee man sa tur bi nga la tur bi nga ne nañ la ko tuddee dafa diis ci sama laam yi instant bëgg ko la koo woowee de mais bi laa dama ko xaw a rus quoi am na ñoo xam ne la rusuñu ko mais fi mu toll nii moom jàppal ne moom ku ëpp problème ci guddi yi ñu toll ëpp ay pro turandoo ci senegal yow la quoi da nga dëgër fit rek da nga dëgër fit rek ah, ñeme yàlla bu bëgg a dee problème yaa ngi noonu di soog a démarrer nag man nag waxuma la dara lépp yow la bu Sonko bokkee nañ la nañ nañ ut xaj tuddee la ko wala bu Jomaay Fay bokkee nañ ut xaj tuddee la ko wala koo xam ne da ngaa am ak Sonko allah allah xam naa façon baat boobu nga wax ko xam naa mooy koo xam ne da nga mën a am Sonko xaar ma yàlla boo xam ne bu fës la daal du bokk ci élection yi loolu nga wax li nga wax moo bari man boo yemoon Sonko kese mën nga am sens boo yemoon ci Jomaay kese mën nga am sens mais da nga ne ku am ak Ousmane Sonko allah imagine toi. li nga wax nii mënoo ci woon a am ndam quoi mënoo ci woon a am ndam Moustapha Moustapha man fi mu toll nii waratuma laa woowee Moustapha Dramé bu fekkee dëgg rek la ñu waxante waratuma la ko woowee parce que yow yaa ne ñu woowee la ñu woowee la ñu woowee la xaj yow yaa ko wax kenn waxul la ko kenn waxul la ne la dañu kenn tëbul tëb rek ne la xaj yow yaa ne bu nangam amee nañ la ko woowee léegi nag mu ngi nii lu waay rendi sa loxo lay naa ci waaw boo jugee ci lii nag nga defaat eh, nga taxawaat seetluwaat ci sa bopp nga defaat say analyse nag wax dëgg yàlla li la dal yéene mënu ko ah yéene mënu ko woon de mais tamit ku la ko yéene woon laa nag parce que li nga wax moom laa man dama doon ñaan contrôle bi quoi yàlla baax na góorgóorlu dégg bu mu la dalati nag góorgóorlul bu mu la dalati de waaw ah, bari ngay turandoo ci guddi yi ñu tolli nag yaa ëpp ay turandoo Sénégal sëriñ sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ doon tuddee ay turandoo sax yow yaa leen ëpp turandoo instant bi toog naa fii ne la <laughs> alaa gi dégg ismina la sam mhm. bu ni mën a ñaan yàlla ba mbokk ci élection yi amul mas naa ko wax dañ ko vaar juróon na fa coow lu rëy nag danañ ko vaar mu mhm. ne dana ma ko indi ngeen seetaan ko mhm. benn ñaari bis topp ma jëlee benn affaire Bassirou Diomaye Faye du ba ci élection présidentielle yi déet Bassirou Diomaye mi waa Pastef jiital ñëpp di ko estati ne moom mooy nekk candidat Pastef te day gagné yow nga ne lu bokk ci élection yi. mais duñ foog nga tegal ma var bi ma waxoon ne. su Ousmane Sonko bokkee tuddalee ma xaj. yokk naa ko. ba si jëmee fay. waaw su bokkee. waaw ulal xaj yow seen kër ngeen tuddee ma ko loolu gën képp ku ci mos a bokk. Mhm. Pastef. képp ku mos a bokk Pastef. waaw biram Souleye Faye ak Birame Souleye Faye ak. Mhm. El Malick Ndiaye ak. Mhm. Birame Souleye Diop ñëpp ku ci bokk. Mhm. kenn rek kenn. waaw loolu xaj tuddee ma ko. maanaam kenn du bokk ci élection yi 2024. képp ku mos a am ak benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. képp ku mos a am ak benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. képp ku mos a am ak benn xalaq. waaw élection doo ci bokk. képp ku mos a am ak Ousmane Sonko benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. képp ku mos a am ak Ousmane Sonko benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. képp ku mos a am ak Ousmane Sonko benn xalaq. waaw élection présidentielle doo ci bokk. képp ku mos a am ak Ousmane Sonko benn xalaq. waaw élection présidentielle doo bokk. te yàlla may dogal. waaw man su ma déggee sëñ si nag Ousmane Sonko mu nekk cinquième président damay xam ne ñi amuñ kilifa. barke alquranul karim Sonko du bokk ci élection yi cinquième président du Ousmane Sonko. te ñoom ñi wax ga mu ko bëgg. dëgg la man damaa mhm. dama ne la. waaw Sonko du bokk ci élection présidentielle yi. Mhm. du nekk cinquième président. ku ànd ak Sonko sa candidature du jàll. kenn du bokk ci ñoom. ku ànd ak Sonko sa candidature du kenn du bokk ci ñoom. ku ànd ak Sonko sa candidature du jàll. Mhm. kenn du bokk ci ñoom. ku ànd ak Sonko sa candidature du kenn du bokk ci ñoom. ku ànd ak Sonko sa jàll. kenn bokk ci ñoom. ku ànd ak Sonko sa kandidat du jàll. Mhm. kenn du bokk ci ñoom. ba tey ba ñoo commencé du ma dañ di leen présenté Serigne njurul ku yàgg siraan sama muy ko yàlla dénk xam-xam loolu nag macha allah. kon boog Serigne Saliou Mbacke borom njurul présenté waatal garab gi gars a xam njariñ li. borom njurul. cabinet la yoo xam ne am na Dakar Dakar rek la ñu amoon léegi am na Mbour am na Touba ñoo ngi ci sant yàlla. Mm-hmm. garab bi day faj quinze maladies. ci na ko gisee nii xam nga étagère yi nga ko fekk. doo gis benn yoon ñu dugal ko ci frigo. du xeeñ te boo ko tegoon quatre mois du yàqu. Mm-hmm. quinze maladies lay dindi. muy ndoxam cité hémorroïde ballonnement bëri lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie sinusite fatiguement général diabète tension mm-hmm. perte balance règle douloureuse limpissage sexuel da koy dindi ba mu jeex tàkk tàkk seeram te moom boo koy naan da ngay gis résultat te doo si jël lu bëri macha allah defe naa ne ñoo ko déggandoo Serigne Saliou Mbacke borom njurul moo nekk noonu garab gi nag mi ngi tudd borom njurul muy garab a baax gu am gi gaawal nga gaaw nga nekk ci garab gi aussi ma leen defal ci suuf képp koo xam ne bëgg la gën ko defee incha allahu rabbi li ma gën a neex ci moom léppam alxuraan la waaw seet moom wax dëgg yàlla yàlla may nañu ci seet nag ñu ngi koy defee ci xilmu nujum muy xam-xamu biddiw bu dee listixaar ñu ngi koy defee ci alxuraan ñun dañ lay wax lépp loo xam ne weesu na ak li nga xam ne yaa ngi koy dund nii te xam nga ni lii moom mi ngi lay arrivé moo xam metti na moo xam méttiwut yaa ngi koy dund nii ak li nga xam ne ñëwagul loolu na xëy na dund goo ko waaye dana am signe yooyu lu koy wan dana la wax signe yooyu wax la sabab bi lépp lu la dal wax la fi ngay teg sa tànk wax la li nga xam ne moo lay yàqal ba noppi wax la sarax ya li nga xam ne boo ko defee rek mu dañ macha allah ñoo ko déggandoo gars yi Serigne borom julul moo nekk noonu xam-xam bi sel na sel na te léppam alxuraan la kon boog gaaw leen gaaw ngeen contacté ko Serigne Saliou Mbacke borom julul kontaan naa ci li ngay saafara jafe-jafe askan wi voilà sama gars yi mu ngi noonu ah, kooku mooy Serigne Saliou Mbacke borom julul kenn dootu leen ko muy koo xam ne yaakaar naa ne liggéeyam ci Sénégal ñëpp gis nañ ko moo xam lépp loo xam ne wàllum jàngoro la joo xam ne nee na lim ko ci ay jàngoro yoo xam ne mooy si borom jurul boobu rek incha allahu rabbi ku ci jokkoog moom sa aajo dina faju mais day ñaan day listixaar mais tamit am na fasu amit daal boo xam ne moo koy def ci loxo boppam képp ku jokkoog moom incha allahu rabbi sa aajo dina faju kon jël leen numéro téléphone yi mu ngi noonu ci suuf